su ma jógee ci loolu damay ñëw ci combat bi nga xamante ni fan yi moo indi coow ci dëkk bi ndax euh, Balla Gaye moo ngi waaj ki nga xamante ni mooy Bombardier ñu naan revanche la dina ko daanaat wala deux lay nekk ñu diggante ñëw ci Boy Niang mu jël Tapha Tine ñëpp na woo ko woon jël ñoom ñaar ñu ñu waaj combat pareeguñ ñu dégg ne Balla Gaye lekk na avance su Boy Niang est-ce que teelul ci Boy Niang. Euh, Boy Niang xale bu ndaw la mu ngi soog a juddu mu juddoo yàggul man bu ma sañoon. Balla Gaye sa lay jëkk a jël bala moo jël. Tabaatine maa ko interviewé maa interviewé Balla Gaye ci kër Abdou Aziz Ndiaye ca Tivaouane. parce que dañ naan combat bi du taxaw combat bi du taxaw ma fekk ko ca biir kër Abdou Aziz Ndiaye mu ne ma pare naa. moom Balla waaw ne ma pare naa. moo tax jàppante naa ci sax ak woy juru euh, Boy Niang parce que bi ma coowee ci combat di coow ci combat ba ba ñu seet si ko. wax ak moom dafa bañ prix bañ ko fay man xaw ma ñaata lañ ko fay xaw ma nu mu demee mais bi ma toogee di def sama émission nag ma ne xaw ma ku bañ loo booy ñaaw mais bëgg ko mais bi bi sama émission pare papa papa moo ma war sama portable saaga ma ne man maa bañ waaw ne ma maa bañ loo sama doom ma ne ko loolu sama yoon newu ci mais day boo xoolee fi ma jëlee xale bi ah ndax yaayam aana yaayam aana sama jigéen la ba pare. Euh, sama tante bi nga xam ne moo jur samay rak ak ana ñoo bokk benn bay alaaj sama nduku maana leen jur kon euh, boo ñaa sama jarbaat la mais sama doom la ndax dëggool dëggool nekk sama rak mais loolu jàpp jàppewu ma ko dëggool parce que nit ki yaramam day tàng rek ah mu waxee noo xam ne xañ na sax du jukko mais du ñàkk respect bu ma dëggool ñàkk respecté dëggool xale bu ma respecté la wax dëgg yàlla Euh, moo tax jis nga Balla gay billaahi wallaahi wa waxoon naa ko di nga Bombardier Balla Gaye moomu daanoon du Balla gay mii de hmm. maa la ko wax man ñoo ko bàyyi te dinañ toogaat fii ma waxaat la ko Bombardier ma Balla Gaye daanoon du boobu Balla Gaye moo ñëw du boobu Balla Gaye de Balla Gaye combat bële benn amu ci doole man xam naa ko ñaareel ba il était malade ñetteel ba estafam bëgg ñu woon combat bi. waaye bi ko lamb mhm. ak bëgg kum bëgg lamb xam ne xaalisu lamb lañ ko ngénte moo tax mu sacrifier boppam keroog. waaye keroog bi ko bi ko bi ko Bombardier daanee ñu ci bëri ne Balla Gaye dafa feebaroon Bombardier dafa ne leen na dem faju ba tane bu demee ba mu lekk na tane na bu ñëwaatee mu daanaat. ah bii de foogu ma ne lool dina am man Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi. làmb nag dafa tëradi nu ne la mën a dikkee ëllëg mais nag Bombardier def ci xelam ne Balla Gaye mu mu daanoon du Balla Gaye mii Balla Gaye mi mu bëreel du Balla Gaye mu mu lool boole koog sarax leen ndongol daara mbaa mu tibb ak dooleem dem Balla Balla loolu lay bëree si sarax leen ndongol daara mbaa mu tibb ak dooleem dem Bombardier bésu combat boobu di nga xool lii ma la wax xam nga lu muy indi observation sans déclencher taxaw ñoo natt lii. maa la daanoon damay léewtoo rek di a déglu. léegi nag ba di nga balla bu doxee ci kaw Bombardier dina dox fekk ci ko moo tax ma ne la dóor mu daanu sax mën na am foofu te balla dafa dafay dafay mbërum wet. Mhm. heure boo dalee ci wet boo dalee ci wet gi mu boot la ñoom ñaan yëpp mbëri wet lañu Bombardier it loolu lay bëri Bombardier heure boo xool ni mu fi def tey seen heure boo dalee ci ci tànk yi mu tëgg la mbot moo tax daal. combat ngi noonu boo xam ne ah na Bombardier def ci xelam ne Balla Gaye moomu daanoon du Balla mii de Boy Niang nag euh, amul dara lu muy euh, perte ci làmb parce que ba am ñetti victoire yu mu tegale yoo xam ne ko daan daan nga ay kàngam saa kajoor ba mu koy sëq di ko sànni kenn xalaatu ko woon keroog ba muy daan bay Mandione kenn xalaatul woon loolu keroog ba muy ba muy ba muy ba muy kenn xalaatu ko woon te day liir làmb. ak Garga Mbossé. day liir làmb day liir làmb ji nga euh, boo boo déggee ñu ne xar dawul wuti doole loolu lay bëri heure bu dawee nga topp ko. billaahi wallaahi wa bu freiné dina la dóor ku bu la dal te na dina la jàpp fi bëgg te heure bu la jàppee dàqu ko bëre Balla nag la kenn mënta nat Tapha moo war a man ci làmb ji moo war a man ci ji bu fekkee ne nekk na ci loxo yi ko war a yor loxo yi ko war a yor buñ ko yoree làmb jëpp ñëpp abal ko waaw téléwu la bëre loxo yi dégg nañ tubaab ba doy làq ah, waaw loxo yi dégg na tubaab boole ko tëlewul bëre li ci des mooy encadrement la amul jàpp mais jege boo amee jàpp lamb ji moo ci man de diggante Gris Bordeaux ak euh, Balla Gaye nag leeralaat la. mais damaa bëgg ñu ñëw ci Balla Gaye ak Boy Niang tuuti rek ñu ñëw ci Balla Gaye moom xam naa ne mooy làmb ndax fi mu toll nii ñi fi gën a ës la jël tegle leen te saaga dégg naa ne sax ci ay ci ay ci foo naa ci boo xefee dina ko ñeenteel wut beneen ñeenteel avance teg. xam nga ñeenteelu avance boobu sax na dugg mais dama lay wax benn affaire waaw dama lay wax benn ci Balla Gaye. ci Wassare Lamb waaw dama affaire ci Balla Gaye. kitaabu naa ci rabu samaate maa fi ardne ku ku koo man ku ñime Balla Gaye xanaa xamoo ne Eumeu Sène day ragal Balla gay ba daan ko Eumeu Sène Balla gay ko man fuuf man maa ko wax man ñox Balla Gaye mën fuuf Eumeu Sène mais Eumeu Sène da koy ragal ba daan ko day ragal pa système la Pape Diop dala daan ragal ba daan la ba sonn maa ko daan tëggal. li ngay wax dama koy dëggal ndax boo xoolee kii di Modou Lo ñëw ne tey damay daan Balla gay léegi léegi Balla Gaye nax ko daan ko. dama ne la mbër dang koy ragal am dafa am euh, boo ko waxee nag dañu yaakaar ne da nga contre mbër mële wala da nga kii mbër làmb dafa bari ay sem kii dangay dox daan ko kii da ngay doxe wet daan ko kii da ngay arrière daan ko mais làmb ji léegi boo arrière ñu da nga maa ragal te piège la. ñun dañoo bëgg sport te mënuñu ko. mu ngi noon piège la. dégg dégg dama ne la Eumeu Sène day ragal toujours ñaari jël yi mu ko daan yëpp da koy ragal ba daan ko parce que Balla Gaye képp ku dëggal sa bopp bu mu fekk la fa nga ne. mais xoolal euh, li tax ma ne la digganteem ak euh, booy ñaar day garaaw boo xoolee digganteem ak Modou Lo Boy Niang dàqu la bëre Modou Lo. Boy ak lu mu mën a mën a mën a bëre dàqu la bëre mais ku mel noonu. Balla Gaye du la may nga réfléchir boo xoolee ni mu ñaari jël yi mu daan yi mu daan Modou Lo yëpp du ko may mu réfléchir du ko may mu noyyi du ko may mu xelaat parce que dafa am ñoo xam ne bu ñu xelaatee rek nga am problème booy ñaan ku ko bàyyi mu xelaat moo la man ku ko bàyyi ak sagoom rek moo la man moo tax la la la Balla Gaye di indi moo ko xam mais booy ñaa moom loolu lay indi bu ko ball bu ko bu balla ya yaakaar ne booy ñaa da koo ragal day def erreur parce que booy ñaa loolu mooy forum. stratégie am. stratégie la dafa daanoon rakkam bo euh, Balla di bëri si ñaar revanche rakkam ak nag dëggal boppam. ndax keroog bi muy jël Sa Thiès Balla Gaye moo na ko doyal ak Sa Thiès soo soo soo jugee ci moom boo ñëwee ñu bëri man ak yow. jeex na mi ngi noonu moo tax ma ne la. combat bi ñaari préparation la ko Balla Gaye di préparé revanche bi mu war a revanche di digganteem ak euh, euh, euh, Sa Thiès bi mu daanoon ak nag li mu doon te bëggul mu effacé wu Boy Niang bu daanee Balla Gaye yée te moom affaire am baax waaw moom fu mu daanee Balla Gaye na xam ne nag lamb ji moo ko moom waaw digganteem ak Tapha Tine nag laa ragal lool li tax ma ragal ko mooy euh, Tapha Tine dafay euh, mbër moo xam ne boo at buy soufflé day wàcc ci ay tànkam di la jam gauche ci droite ko kon kooku boo ko boo ko doxloowul rek doo ko daan il faut nga doxloo ko. da lay jam gauche ci droite. waaw da lay jam gauche ci téye droite. droite bi heure boo dee yëbar bu dajeeku bu la ko dóoree nga sedd kon li koy daan moom da koy doxloo boo ko doxloo nag mën naa juum parce que un pas deux pas bala moo teg troisième pas nga jàpp ko waaw man nga mën nga am dara moo tax dal combat yooyu benn bu ci nekk combat la